jóg leen taxaw ni sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem law lu yaw Fallilu rahmatullahi taala mi ñu ngi doon sàkku nag ci mbooloom koo xam ne da fi teewe ñu may ñu tuuti rek ñu am ay kàddu ñu bëggoon sàndi ngir am ay daayira yu fi teewe te amoon yéene jébbale seeni liggéey ñu bëggoon nag ñu ànd ak dal tuuti rek déglu ndax ci lay gën a dàqee gannaaw kon bu ñu nuyoo ñëpp ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di baalu àq ñëpp gannaaw kon bu ñu sant yàlla julliwaat seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jëlaat suñu pàgguteefu àdduna ak àllaaxira jéblaat ko xaadim rasul di ñaan nag suñu bépp jëf ji yiw ak jëf ju baax ju ñu mës a def ñuy ñaanal a Cheikh Sidi al Maxtaar na fi yàgg an ko wér di ñaanal sëriñ Abo Baraka moom sëriñ Fallu yàlla na fi yàgg moom an ko wér ak jëmm ji toog di sëriñ Moodu Maamun Mbàkke Fallilu moom it na fi gën a yàgg gën fi sax suñu borom may ko kàttan ak wér lafal ko cat may ko li mu yéene ci lislaam rawatina ci yoonu maamam bii mu am ci ndam ndam bu mu bokkoon lislaam bi yëpp ñu am nag yéene sot ñaari kàddu yu mënul ñàkk gannaaw naka jekk démb sax amoon na ay daayira yu fi ñëw fan yii yëpp daayira yi ngi ñëw ñii di jébbale ñii di am ay kàddu ñuy wasare waaye nag tey nag dafa di loo xam ne lu mënta ñàkk ndax naka jekk dañ ko daan baaxantal tey jii dina am daayira comme daayira yi fi ñëw muy ay daayira yu mbooloo yu bari macha allah yu fi teewe waaye ñu gën ci ràññee daayira ah, soppay Serigne Saliou wi jiital di sëñ Mamoun mi nga xam ne daaw. woon na fi amoon ay taalif yu am solo yu mu defoon ci kanamu sëriñ bi mu amaat solo renti mu ñu fekkee ko te ñu yàgg yàlla nañ ko fekkee ci barke borom Touba incha allah danañ ko jox kàddu waaye balaa ñoo def loolu Mbàkke it dafa am it soppe maanaam euh, waa kër sëñ Fallou yi turandoo sëñ Fallou yi jiital ci sëñ Fallou kon mbir mi man dafa mel ni dafa dafa doy waar ndax kon sëñ Fallou ak sëñ Maamun ñoo fi daje. te te jëmm ji di sëñ Fall di sëñ Maamun kon yàlla na fi yàgg ànd ko ku kon nag dañuy baaxantal ci nañ daan def sof nag ci mag ñi naka jekk sëriñ bi li mu daan def muy kóllëre te def ko mës a jàpp te sëriñ bi def ñu mës a jàng luy kóllëre ñu ubbee ko ay kàddu suñu magub daara suñu magub taalibe te moom it mu ne sax yàgg nekk ci kër gi muy sëñ Alaaji Sarr moom nga xam ne mooy jëwriñu kër gi mu am tuuti kàddu yi mu sànni rek te mu gàtt mu sànni ku ci mbooloo mi naka jekk na mu daan defee boo noppee incha allah ñu wéyal kon ku ci mel ni sëñ Fallou sëñ Mamoun ñoom ñu jot li seen kàddu ñu bëgg a jot li sëriñ bi. ñu bëggoon nag ku déglu rek yàlla nañ ko fekkee déwén ku déglu rek yàlla nga fekkee déwén xéwal nag saawaan yu baawaan ci barke borom Touba ñoo ngi koy sàkku na ci ñëpp kon nag ñu ànd ak kon jox alaaj Sarr suñu bàyyi alaaj saar mu sànni ñaari kàddu na ma ko daan defee rek. mu baaxantal ko bu noppee incha allah ñu jox euh, maanaam sëñ Fallou ak sëñ Mamoun bisimilah. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa gannaaw bañ sante yàlla sant suñuy yaari waajur sant Serigne Touba ak waa këram ñi ngi ñaanal sëñ Sidi Muxtaar ak waa kër sëñ Touba gépp suñ borom yàggal leen fi ba liñ bëgg a liggéeyal Serigne Touba. ñu liggéey ko te ànd ko taalibe te suñu borom fayuñu ko ci barke borom tubaa yàlla na ko suñu borom def gannaaw ba loolu weesoo nag kàddu yu gàtt rek lañ ciy sànni nunu ko ñu ko waxe rek niñ ko daa baaxantale nañ sant yàlla nag bu baax bu ñu yàlla walbatike boolee ci ñu nekk ci nga xam ne mënoon nañoo ne ci meneen mbooloo mu indi ñu ci mbooloom sëriñ Fallou te Serigne Fallou mi ñu yàlla def ñu bokk ci mbooloom sëñ Fallou di tànneef ci wet gu kon loolu taalibe yëpp war nañ cee maase sant yàlla sant sëñ Tuubaa sant sëñ Fallou mi ñu boole ci boppam ndax kat aadi euh, sëñ aadi bañ ko waxee na ko yow da dañ ne luy ñuul kenn rawulu ci mbaa xam nga ci lu bari mu ne si kuut ñu ne ko lu tax nga xool ba tax bokkoo ci mbooloom sëriñ tubaab mi daa wax ne wax ngeen dëgg de waaye Serigne Touba moo tànn ñoñom moo fekk ci tànnee fu ngeen gi mu ne mu tànn fi ñoñom te bi muy tànn tànn ma kuñ tànn na mënoo bokk ci kañ mënoo ànd ak kuñ tànn kon bu ñu yàlla buñ xoolee loola suñ borom boole ñu ci mbooloom sëñ Fallu sëñ Fallu te sëñ Fallu di tànneef ku ne xam ko war nañoo sant yàlla bu baax tey ñaan yàlla liggéey bii ñuy liggéeyal sëñ Fallu ak sëñ Maamun yàlla yàggal ko fi yàgg koo liggéeyal te kenn ku jëne gën a takk ndigam te xam ne liggéey boo xam ne dalay lay jëriñ fii jariñ la fa ñu jëm liggéey bu jafe la kon bi ñu ko yàlla joxee kenn ku ci ne war na cee góorlu te xam ne la lay jëriñ fii jariñ la fële loola ku ca nekk war caa góorgóorlu baax teg ko waat leen te xam ne kat ku liggéeyal sëñ Fàllu liggéeyal nga sëñ Tuubaa te ku liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal nga sun borom kon góor góorlu nañ bokk góor góorlu fas yéene takku te ñaanal sëñ Maamun mi yàlla yàgg yàggal ko fi kanam mu yàgg ñoo liggéeyal ñu yàgg ko liggéeyal di ñaanal yàlla njaboot gi ak taalibe yi yëpp suñ borom jox ñu ndimbal ak wér ak tal ak fekke ñu yàgg koo de liggéeyal ci barkeb sëñ Fallou barkeb sëñ Touba sëñ Mamoun ñu ngi ñaan yàlla yàggal la fi sama xol nag moo fees ren munu maa wax ndax xam ku ne xam na li feesal sama xol naa ngi balu ak ñëpp di baal ak ñëpp ñu fas yéenee dàggee ko te fas yéenee xam ne àddina day dara néewu fi lu dul lu dul lu baax kon bi ñu yàlla boolee ñu war a liggéey liggéey ci liggéeyal sëñ Fallou liggéeyal sëñ Mamoun nañ gën a takkuwaat gën a lu nekk benn te xam ne njëriñal fii la njëriñal ëllëg la yàlla ñu ci yàlla dimbale defal ñu ko sama xol a fees mënu ma wax tey moom dama ko leb daal ba beneen wasalaam xam ngeen li feesal sama xol jërëjëf jëf Baye Alaaji Sarr kon yàlla nga yàgg di taxaw nii ngay taxawee daara yi ci waxtu bi nga xam ne ëllëg mu doon kasu rajab bi nii la ko sëñ bi di bëggee te kóllëre gi ma doon wax rek sëriñ moomu ndax ma sa jàpp te saa yu ñëwee rek da koy fàttali ne nañu nañ ko daan def nañ daan def rek te kon yàlla nañ yàgg di ko defee nii barke borom Touba. kon dañuy jébbal kàddu gi naka jekk euh, maanaam waa kër sëñ Fall waa kër sëñ Saaliw yi daanaka ku ci mel ni soppe sëñ Saaliw yi euh, sëñ Maamun mi nga xam ne at bu jot nii la ñoom nañ daan def. dañuy ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi jàpp ak ñun ci liggéey bi ci programme bi ci lépp lu ñuy def ànd ko Sëñ Mamoun Bousso ak waa daayira bi yëpp ñëpp jàpp ci kon dañuy jox kon incha allah Sëñ Mamoun mu am kàddu yu mu sàndi bu ñu noppee incha allah ñu jox seen Fallu bisimilah. alhamdulilah mina seytaan rajim barke Seexul Xadim comme waa daayira sopp Sëriñ Saliou seenu siyaare ñoom tamit ñu ngi jàng fukki kaamil ak fukki noor dara ni ak téeméeri muwaahibu ak junni xasiida ak téeméeram faadoon bisi lépp nga def addee Cheikh Mamadou Fadel di ñaan sëriñ bi yàgg fi te lépp nga def gërëm sëriñ Tuubaa kon teel bi ñu daan def ñu barkeelu ci xam naa jëmale ko ci sama solo ne jógaat naa di waajal weeru rajab weeru màgg waa ngi ne ñëpp jóg jógaat naa di waajal weeru rajab weeru màgg waa ngi ne ñëpp jóg te sellal ko takkuwaat tënku ci njub te waajal ko ci njàng te ñaan nag lépp jag ndax rajab daa màgg ndax mbir yi ci xew jullee ci wàcc ak Cheikh Fallu mi nu naw te suñu yoneen bii ci te suñu yoneen bii ci dem ci kaw àndaale ñu junni julli mi jar taxaw te Cheikh Bamba mii nuy xet li fekk fa nu jëm ci weer wii la sañtoon dëkk bii nu xam te Cheikh Fallu daana wax moom lu am xorom ne yoneen bi daa jóg dem man ma ñëw fii ci xaddi bi te Cheikh te Cheikh Bamba daa fonkoon julli def na ko fu ne te Cheikh Fallu ñëwam jii daal daal bég na ci te Cheikh Bamba wax na ci Cheikh Fallu mii nu lay ne gan gi su wàccoon feneen ndaw lu rëy te Cheikh Bamba daa wax ci Cheikh Fallu lu rëy ne gan gi su wàccoon feneen ndaw lu rëy te Cheikh Bamba ne ñëw ñëw ñëwam ji mu ñëw fii ci man bégaan naa ji mbég mu rëy mu sax fii ci man ma marsi yàlla sun maam soxna sooda mu rëy la mu dëggaloon moom soxna sooda te bàyyam ba moo njëkk joxe Cheikh lu mii junni te booba yombul gëm na sang bii te bàyyam ba moo njëkk a jox Cheikh Fallu mii junni te booba yombul gëm na sang bii 1912 la woon te Bamba ngi fi woon Madiang murid la Cheikh Fallou la gëmoon te maam Madiang kat murid la bu dëggaloon lu mu jur ak lu mu am lépp falloo ko moom te maam Sooda may it murid la bu dëggaloon te Baye Fall la maam Sooda moo sellaloon am na ngërëmal baayam la ak Cheikh Fallou mi jiwoo woon na it ak ñoom nekkaloon ci sang bii te maandoog noppeeg muñ wallaahi la boole woon di far defar ba mu jag wallaahi nag la sàlla woon sëtam yeeg dongaam yi yëpp a yem ci moom amul xaj ji ba seen ab sang dëgg nag la woon waaye ak lay biir ak jàpp làmmiñam doy ak doy lu la saxoo woon ci ñoñam du jàmbat du jéppee du boddeeki xasta itam koy sang dëgg la làmboo xawma it kemam la bàyyam ba bëggoon te yéene woon ko ci sangam lépp lu matal sunu maam ji daal làqi ndam jërëjëf soxna Sooda yow yaa ami ndam ndax Cheikh Modou mi ngi fi mi ngi fi am ñëwul ay kemam du juddu baag taalibe baab jàng itam am personnalité ragal yàlla gëmu sangam te maam Soxna mi seex Fallou la gëmoon daana muñ lum tartar soxlaa mit kenn xamu ko woon Cheikh Mourou santal Falloog sa maam ja te santaat soxna Soxna lii lépp nag mooma liggéey na ba wàcc wuy ji Cheikh Fadel maam jaaraak maam maam jaaraak soxna xawaa koy bi bisub dajeem baak Cheikh Fallou mi wallaahi soxna Soxna bi gaan ndax fallu mi Cheikh Bamba ak Fadel ñëpp a yàkkamti woon dajeeg soxna Soxna mi ba fay ko lam jëfoon gaa yi baax yëpp a ñëwoon di ko teeru ànd ak jigéenam ya ànd jigéenam yu baax yaag may kabiru gaa yi baax yëpp a ñëwoon di ko teeru ànd jigéenam yu baax yaag may kabiru te Cheikh Fallou su jógee jundillaahi yëpp jóg ba moo tax Mikaayil ma wàcc wàcc ndoxam ma waxtu robam woo moom soxna sooda taw na fa taw bu yéemu nag ca boobaa noppalul nag ca àjjana yaag jannatu nahim te dëkk faak say sayxunal xadim te yàlla aaral la Cheikh Modou ki ñooñam ak taalibe yeeg satam yi mu am amina amin yàlla na yàlla nangu ñaan ci ci daraja yi Cheikh Bamba ak Mouhamadul Amin amina yàlla na yàlla nangu ñaan ci barkeb Cheikh Bamba ak Mouhamadul Amin Cheikh ma Cheikh Amadou yàlla na suñu borom yàggal nga ñaanal mbooloo mépp xéewal ak mucc ci barke Cheikhul Khadim asalaamaaleykum ñoo ngi nuyoo nuyu di ziar sëriñ Mamoun Mbacke ibn sëriñ Fallou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér lool ci barke sëriñ Fallou Mbacke ñu yàgg feek moom te yàgg koo liggéeyal ci sëriñ Fallou daayira Touba Daaru Salaam bu mbàkki Bawal turandooy sëriñ Fàllu yu ay tuut tànk di ñaan sëriñ Mamoun ñaanal ñu ci barke sëriñ Fàllu sëriñ Fàllu yi dem ba téyal daayira bi seen bopp téye bu kawe bu kawe suñ jot ci barke sëriñ Fàllu ndax bi ñuy doog a door di ñëw fii di ziar booba lañ gënoon a nekk xale ah tey tamit ñoo ngi ñoo ngi taatan ñaanu sëriñ Mamoun te lim ñu ci jot ñaanal ci at yi nu weesu gis nañ ko te ñoo koy jariñoo te ñoo ngi ñaan mu gën a sax te gën a law ci barke sëriñ Fallou ndax xale yi ay xale rek lañ woon nekk ay xale yu tuuti lool waaye nag fi ne ñi ngi dëgër si te ñi ngi ñaan yàlla gën leen a dëgëral gën leen a barkeel ci barke sëriñ Fallou ñuy ñëw nag di ñaan sëñ bi ñaanal ñu ñu mucc ci bépp lépp luy lore mucc ci bépp mucc ba ak bépp bala ñaanal gone yi teg leen ci siraatal ma ak soppee sëñ Fallou yu ñu àndal ak ñu ni seen ay waajur yàlla jàpp lañu teg ñu ci siraatal ma teg ñu ci jaamu yàlla liggéeyal sëñ Touba liggéeyal sëñ Fallou liggéeyal sëñ Mamoun barke sëñ Touba tout tànk yi nag dafa am àddiya bu ñu doon jébbal sëñ bi boo xam ne ñoom ñoo ko xayma ci seeni xalaati bopp ak seeni doole yu néew ndax bëgg rek lu neex sëriñ bi moom la sëñ Fallou am seen jëwriñ yi yore nii mooy mooy ki mag ki daayira bi ñu ci des ñëpp ay tuut tànk lan ñuy ñaan nag sëñ bi yàlla na ko fi yàlla yàggal lool ci barke sëñ Fallou yàlla na ko fi yàlla yàggal lool tam wér lool ci bàkk sëriñ Fallou jërëjëf Mbacke Ba. بما يسره ألهانا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 di ñaanal bu baax sunu jëwriñ suñu yaay yaa faama caam moom mi nga xam ne moo ñu magal ci daayira bi te jiite ñu wax dëgg yàlla ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax ndax lii mu ñu xeetal ba tette ñu ci ban man cee ñëw ci kanamu sëriñ bi ginnaaw bu yàlla woyee jëmmam ji la ndax kenn ku ne xam na ne dajale ay xale yombul rawatina ay tuut tànk yoo xam ne kenn amagu ci fukki at kon nag lii mu def daal ñoo koy ñaanal yàlla ak Serigne Touba ak Serigne Modou Mamoun ak borom bis bi lépp ñu dund ba gis ko ci barke Serigne Touba ak mbooleem kum àndal muy soppe yi ñëpp ñu ngi nii mbooloo mi yëpp ñoom ñoomaan ñu jóge ba Mbàkke ñëw fii ñu bàyyi seen yitte yëpp di bàyyi seen doom ñuy ñëw ci daayira bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ku lim jóom waaye daal kun tudd ak kun tudd yëpp ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ku fi ñëw tànk yi nga fi dox ñëw fii yàlla na ko suñu borom defu yiw ak tànk ya ngay dellu ci bàkki sëñ Modou Mamoun ñoo ngi sant bu baax di siyaar ñëpp naa kàddu yi dañ koy yemale fii rek ndax jataay bi xat na te toogaay bi yàgg na waaye daal ñi ngi sant bu baax sëriñ bi tey ñaanal taxawaayam yàgg bu baax a baax a baax ci barke sëriñ Tuubaa jërëjëf salaam. waaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam tënk rek kàddu yu gàtt bi yàgg na léegi te mi ngi bëgg a guddi te suba mooy bisu mag bi ñuy séentu kon dañuy nuyu ñëpp rek Eh, sant yàlla bu baax julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba radiallahu taala anhu ñaan yàlla fayal na ko te yàlla taas ñu ci barkeem di sant Cheikh Mamadou Fadal bi ma booleeg Serigne Touba ñaan yàlla fayal ñu ko te yàlla taas ñu ci ay barkeem di ñaanal Cheikh Sidil Mokhtar xalifa général des Mourides mu yàgg fi loolu te wér li ma koy waxee rek ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko ci sago te fekkee ko taanu ko ak moom noonu lañ koy ñaanale Cheikh Abdoul Baraka. Mouhamed Abul Baraka sëñ Abo Mbacke di xale bi sëñ Fallou ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér bi muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Cheikh Amadou Fadal boo ko liggéeyal sëñ Touba lépp mu àggale ko ci sago dana fekk fa te ànd ko ak moom noonu lañ ko ñaanale njabootu sëñ Touba gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di ko ñaanal jullit yëpp di ko ñaanal islam yëpp di ko ñaanal Sénégal yëpp te leen déggul nag jotaay bu yàgg bi waaye lépp yiw la lépp rafet na ba noppi ndax kàddu yi dëgg rafet na mat na ak jëf ji itam ak si na mot mat na daanaka li gën seet mooy sant ak ñaan ñu sant bu baax a baax ñu jël kàddu ñëpp rek Eh, tàmbale ko ci soxna Fama Thiam eh, ak sëriñ Mouhamadou Mamoun borom borom taalif gu am solo gi taalif gi am na solo lool gu daaw gi am na solo waaye gu rëy gi def am na solo lool di sant itam eh, sëriñ Fadlu Thiam muy wax ci turu soppe sëriñ Fallou yi ak soxna Ndeyloo muy wax ci turu sopp daayira soppe sëriñ Fallou yi nekk Touba Guédé ak sëriñ Mouhamadou Dieng góor gu ñaaw gi wax ci turu jembe yi nga xam ne ñu bëgg cere lañ waaye jàmbaar la xet leen na di leen sant yéen ñëpp di gërëm rek di sant sëñ Alay Sall mi nga xam moo ubbi kàddu gi moom mooy doyen jataay bi naka jekk moo ko daan def ba dara xewu ko ñoo ko sosoon ñu si Ousmane Bindié rek ngir wëllëre ak ak ak rek tax muy saa bu ñu toogee jataay bi ñu na ko ubbi di fàttali ko ñu ngi ko daan àndal itam bu yàgg di sëñ Gote Mbeng di Thierno Lo di sëñ euh, am di Ñang di sëñ am di Ñang ak magam bu tedd ca Serigne Niang ñoom ñëpp rek ak ñu ngi ko daan àndal di leen fàttali sëñ Goota léegi wax naa ko lépp di leen fàttali day seen kaw dugal leen àjjana a ko wee leen sant ñëpp rek yëpp rek soppee sëñ Saaliw yi soppee sëñ Fallu ñëpp soppee sëñ Saaliw lañ soppee ñëpp soppee sëñ Saaliw ñëpp soppee sëñ Fallu lañ ñu jóge Daaru Salaam ñu jóge Gédé ñu jóge Sura ak ci daayira mu fàttali Bichri fédération bi jóge Dakar ak Njaaréem ak Tuubaa ñëpp ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp te nii lañ ko bëggee woon bëgg lépp rek ñu def ko benn ak ne lépp ci kenn ki la jëm suñ fàllo tax ñu koy def te tey ma gis suñ fàllo bi suñ fàllo moom daal wax ay nit bu ñu bëggee lenn bëgg ko ci kenn dañuy def seen bopp benn taali bi murid yëpp lu baax lañ bëgg jiw lañ bëgg ak jàmm ak diine te di ko sàkk suñu borom di ko jaar barkeb Sëriñ Tuubaa kenn ku nekk nag ak buntu ba nga koy jaar ñun nag dañoo jàll dañoo jël suñu buntu def ko mu Cheikh Modou Fadal kon buntu kon dañoo war a def lépp muy benn ñu koy yëkkati ko di ko tegandoo sant nañ baax a baax a baax a baax suñu jaww ji Abdoulaye Ndiaye ak ñi nga àndal ak daayira yëpp sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp dañuy dañuy dañuy gën a jébbal si ñëpp suñu fàllu rek dañaan ci barkeem ak maanaam ak jubóog boroomam booy nga xam suñu tubaab ko seede woon yàlla fayal ñu suñu fajal ñu suñu ajo yëpp bu fi indi woon ajo ak lu aajo ji mën a mel kattanug yàlla mën na koo faj mën na koo saafara yàlla na ko saafara képp ku fi indi woon looy ragal ak looy looy dàq ak loo luy jax-jaxi sa yàlla ko yàlla dindi te saafara la ko fajal la ko ci barke suñu su xol seet na bu baax a baax dañuy bañ a gën a guddal ndax jotaay bi yàgg na te daf ay tut tànk ci bari nekk te suba la bisu mag bi ñoo xam ne dañu ko war a waajale tax tout tànk yëpp ñu leen ñaanal nag yàlla dafa leen ay mag te def leen mag ñu am ñam mag ñu am diine mag ñu ay taalibe mag ñi itam yàlla yàggal leen ci kanam tut tànk yi wéral leen yokk seen yokk seen sutura yokk seen i yokk seen i xéewal sëriñ Maamun bu soo sam kàddu yi rafet na lool soññe yi rafet na an dëggu na yéene na ci xol waaw daal lépp rafet na bu rafet dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan ñun ñëpp ñu fekk ko déwén nag fekk déwén kenn bañ a manqué buñ ko fekkee itam yàlla nañu wér buñ wéree itam yàlla ñu am ay xéewal ñu am ay xéewal itam yàlla na xéewal yi yokk ba ku nekk yëg ne yokk nga ci barkeb sant nañ gërëm nañ daal waaw sant du sant gërëm du weesu gërëm kon li ci des mooy ñu ñaan rek te denc yeen kàddu yi bu suba jàmm ne lu kàddu yi doon continuer fii ba subay du weesu loolu jërë ngeen jëf yàlla na yàlla faj aajo yëpp rek jërë ngeen jëf yàlla na yàlla faj aajo yëpp suñu xol sedd na bu baax a baax yàlla ñu ko fekk dee sant ñëpp ñu teew nag sëriñ Baba Diène mi ko teewee sëriñ Mouhamadou Bachir Diaw ak bokk yi teew yëpp nga xam ne fu ne jóge nañu fa jóge ci biir réew mi jóge ci diaspora bi Cheikh Amadou Fadal Dieng ngeen ñoom ñëpp rek suñu xol sedd na bu baax a baax yàlla nañu ko fekk at yu bari lool mu ànd ak jàmm ak yokk barke Cheikh Amadou Fadal jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jóg leen taxaw ni sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem lawlu yow Fallilu